Aïdara toujours par rapport à Sadio. oui mais je pense que il a tout résumé xam nga man si tu es dans pour man toujours soo nekk ci liste transfert moom ça résume en fait parce que le club a décidé. par rapport à. Il y de joueurs qui réussi. Hein. Je dis, il y de joueurs dans l'histoire, surtout les joueurs oui, africains. Non, pense Eto en par exemple, ouais, ouais. il, faut, il, que, il, faut que il avait saison extraordinaire, resté, mais après. Mais parce que même si tu restes aussi, xam nga jour moom tubaab su demee ba ne la bokkatoo ci samay schéma yaa ngi ci liste mm. transfert yi xam nga yàpp. voilà moom foofu mooy résumé question maintenant Sadio c'est c'est un homme de défi donc je me dis que xëy na il est en train de corriger li ñu doon wax ci moom par rapport au fait que il marque pas des penalty c'est de la même manière euh, xëy na qu'il traite la question de de ce transfert mais il faut que mu jël ko avec beaucoup de retenue parce que football bi dafa xaw complexe en mm. te tubaab suñu demee ba ne yaa ngi ci listu moom xamal y a problème quoi après ñu additionner les épisodes ak bu mu amoon nag le roi Sané nga xam dafa yëngal vestiaire bi donc loolu yëpp Euh, moo gën a nekk en perspective waaw waaw moo gën a nekk en perspective donc xam naa dañ ci gën a revenir mais pour man Arabie Saoudite voilà bon enfin c'est la grande question en tout cas daal benn jàngat laa ci am mooy euh, xam nga dafa nekk dëkk boo xam ne dafa xaw a particulier donc euh, ba ma toogee gëstu xool xool xool dama jàpp ni daal particulier bi daal maanaam ci ci question diplomatique quoi c'est une question de relation internationale en fait dañ koy xaw a fàtte un dans dans les approches mais pour man Arabie Saoudite xam nga amuñu signature bu baax sur le plan diplomatique mondial donc dañu toog càmbar ne xëy na suñu jaaree ci wàll football xëy na au moins dinañu am benn gëdd sur le plan international te lool pour ñu am ko il faut ñu dem wuti ay joueurs de de haute facture mën leen indi. si comme le Qatar plus ou moins c' est c' est tout le golfe d' ailleurs ils ont de l' argent mais mënuñ amuñ une signature sur le plan de diplomatie internationale na mën nañ contourner ces paramètres d'ordre diplomatique pour mën a impacter un